Bonjour la team, est-ce que vous allez bien les gars tey dama leen di expliquer nan def ba lépp xaalis ci 1xBet alors que da ngeen a benn coupon yoroo leen xaalis nan ngeen def ba 1 lebal leen ngeen jouer ko donc euh, bu fekkee ne yaa ngi may soog a seetaan maa ngi lay demande nga abonné nga aimé vidéo bi donc comme vous le voyez leen xoolee man sama solde actuellement ni zéro franc la donc dañuy ñëw historique di mais nag euh, à condition na fekk yaa ngi am benn coupon boo xam ni mu ngi waaj a valider donc bu fekkee ne am benn coupon buy daw donc euh, mën nga yow di nga am possibilité donc yow di nga am possibilité pour 1xbet lebal donc les gars donc c'est en ligne vidéo bi jusqu'à la fin comme vous le voyez les gars actuellement ni Royal Union sans Gilois moo ma pour ma mëna des valider coupon le code 2 la mais c'est un ligne vidéo bi jusqu'à la fin parce que li tax may def vidéo pour expliquer les na ngeen di lebee xaalis ci 1xbet les gars donc comme vous le voyez te su ma bëggoon a jouer benn mat exemple ma bëgg jouer match bii nii euh, Wydad bii nii ak Ossett United euh, donc man maay xool euh, ban affaire moo ma neex comme exemple tey dama leen di expliquer waale yéen ñi ma doon laate te nii pour laan la donc v mooy équipe bi nga xamante ne moo recevoir day door V2 mooy équipe bi nga xamante ne moom moo fekk ji moom moo fekk si ça veut dire que dañ ko recevoir moom day door comprendre ngeen donc ñu ñu jàll si vidéo bi Euh, soit ma defal leen fii tamit euh, benn explication expliquer leen ko mais lu may def damay def vidéo bi nga xamante ne day daw parce que dama bëgg euh, damay def match yi nga xam ne day daw parce que dama bëgg ngeen gis ko yéen ñëpp mais nag duma ko def risque parce que dama leen di expliquer moo tax donc damay xool li nga xamante ne moo gën a yomb rek ma def ko donc comme vous le voyez les leen vidéo bi ba mu jeex fii score exact la parce que tamit fii tamit am na risque score exact moom am na risque donc damay fi nga xamante ne mooy douze double sens bi mais li si gën a lii daal damay ñëw un virgule cinq un virgule un un fois ça veut dire que un x bi mooy France mën ngeen ko protéger mais nag li ngeen di def bu fekkee da ngeen bëgg a leb seen alors man sama compte zéro franc moo si nekk demande ngeen di ñëw comme vous le voyez les gars gis ngeen boo leen ñëwee demandé gis ngeen sama solde actuellement ni zéro franc la donc euh,

Euh, de l' avance bet placé un pari ça veut dire su ma accepté rek pari bi day jaal comprendre ngeen euh, léegi pari bi jaal na cinq mille cinq mille euh, laa leboon donc cinq mille deux cent laa war a fayeeku bu coupon bi validé alors que tamit beneen affaire laa leen bëgg fii nii ci diggante bi parce que tamit parfois gars dañu koy def mais duñu am dañuy dañuy dañuy yor benn coupon bu nar ñu leb léegi buñ lebee ñoom seen coupon bi ñu leb bu jàppee bu jàppee waa xbet euh, exemple bu ñu waroon jàpp tey cinq mille dix mille waa xbet jox leen six cent franc wala leneen xam lan moo koy waral xbet dafa jël xaalisam dafa jël remboursement moo tax comprendre ngeen tey exemple tey jii nii Royal Saint-Gilloise mi xam ngeen moo mën a deux un pour l'instant mais pour l'instant tey buñ ko dóoroon laa leen di wax buñ ko dóoroon da mun ko dor sax wala muy ni munu munu nekk parce que yii ni code 6 lañ ko may pour mu pour tey bu mu ko naroon a protéger rek donc seetaan leen vidéo bi actuellement ni eh, damay pause vidéo bi ñëwaat donc parce que li tax ma koy pause comme vous le voyez les gars donc ñëwaat na euh, France gagné na donc comme vous le voyez les gars donc advance bet bi 5000 euh, bi remboursé woon nañ ko bu yàgg li tax ñu remboursé ko euh, fale comme vous le maa ngi waroon a fayeeku vingt et un mille deux cent gis ngeen maa ngi waroon a fayeeku vingt et un mille deux cent cinquante actuellement nii actuellement nii liñ ma jox liñ ma jox mooy euh, seize mille six cent seize mille deux cent cinquante xam comprendre ngeen li jox ma seize mille deux cent cinquante mooy que dama leboon cinq mille francs gis ngeen cinq mille francs yi bi ma ko lebee coupon bi bi mu valide directement directement lañ si rocc seen cinq mille francs mu des seize mille francs donc day wane ne man kon cinq mille francs bi nga xamante ne moom laa leb même bu fekkee ni un million la si validé doon si dindi dara benn fere duñ ko si dindi comprendre ngeen parce que man amatuma amatuma benn accord ak ñoom parce que dama leen fay seen xaalis ba pare donc euh, su ma leen parce que man dama leen fay ba pare comprendre ngeen donc euh, benn affaire laa di ñaan ngeen amee ngeen abonné donc lii lépp pour ngeen mën ko def nag da ngeen di ñëw si paramètre bu fekkee ni compte bu yàgg ngeen yor bu fekkee ni compte bu yàgg si paramètre bi donc boo leen ñëwee après fi ñu bind c'est déconnecté di compte comprendre ngeen fii nii ngeen di bind si lu rouge lii c'est déconnecté di compte ngeen def c'est déconnecté donc boo leen defee c'est déconnecté après da ngeen def c'est déconnecté donc ngeen patienté woon ci bët bi ñew application bi ñew donc bu ñewé ngeen ñew inscription les gars donc comme vous le voyez inscription vous pouvez venir inscription ngeen ñew inscription ngeen def par téléphone soit par complet mais man mën ngeen def par complet oh, parce que mo gëna a assuré mais par téléphone tamit ça va passer donc ngeen def sen donc ngeen def sen numéro de téléphone soo defé sen numéro de téléphone ba par ngeen def code promo bi N 2 la lépp en majuscule la donc SENE2 S E N E 2 lepp en majuscule la comprendre ngeen comprendre ngeen comprendre ngeen lepp en majuscule c'est ce que comme vous le voyez les gars donc man suma ko defé ba paré def accepte j'accepte les conditions générales de la société j'accepte la police de l'identité je confirme que j'ai 21 ans bu ba amul 21 ans nak euh affaire bi dal mais dara man nga confirmer rek am nga 21 ans donc jian def gars ben affaire la ni ñaan ngeen woy di abonner ngeen aimer vidéo yi s'il vous plaît les gars jian def